salaamaaleykum maa ngi jëloon ziar bu baax a baax ah waaw loolu la kon tawfeex la ndax daanaka man daal maa ngi côté buntu bi donc li may def mooy damay jaar central équipement rek li jëm ci bagage ak moo ñu ngi dem incha allah bu soobee yàlla. sëñ Fall bil xayri wal mafaazi alhamdulillah équipement dafa centraliser lépp loo soxla ci équipement cuisine ci seen ndaje diine yu mag lu si mel ni màggal wala gàmmu benn bërëb rek sa aajo daal di faju central équipement di jox lépp luy taaral kër di bakkanal dund gi Central Équipement. Venez vous équiper à moindre coût. Nos prix défient toute concurrence. La qualité est notre credo.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 ma wax la la waral màggal ga nga xam ne Seex Bàmba réyal demam ga taarix ba ama jëy sa sin mooy at ma moo di lelu du sëriñ Basiiru mbég ma nee na la defaloon Kalima te daay yi ko Ibrahima ba yàlla buur ba farataal tabaski ak tam xarit may na ko gaay Mbàkke mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu seen émission ay màggal gi mu ngi fii ci Touba ci barab bu sell barab boo xam ne seriñ bi moo ko sancaloon boppam euh, di ndaam ñu gën koo xam ci daara alimul xabiir euh, incha allahu taala mooy barabu siyaar barab boo xam ne ñenn ci njabootu sëriñ bi fi la ñu jàngee alquran am na fi ñoo xam ne it fi lañ leen denc. incha allahu taala boo leen ñu toppee danañu ànd ak uh, borom xam-xam bu mag Serigne Fallou Lo di kenn ci njabootu Serigne Dame Abdourahmane loo ñoom ni nga xam ne ñoom la fi uh, ñoo fi dëkkee te ku ne xam ne ne Serigne Dame Abdourahmane Lo moom la bi dexaloon mu nekkoon fi doon ko liggéeyal mu bokk ci barab yi nga xam ne Serigne mag bi jaaroon na fi incha allahu taala boo leen ñu toppee danañu gën a yaatal waxtaan wi. ñii dafa soog kàmm yaa ngi ak nasaraan yi ñii di fi xaar yi di ànd ak yi doomi soxna doli soppi daara te dong ñaan jigéen ña mel ni saara alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa radiyallahu wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare ci jotaay bi nga xam ne dafa bokk ci jotaay wàccaay màggalu Tuubaa ci barab bi nga xam ne mooy daaru alimul xabir kon ñu ngi nuyu mbokk yëpp képp koo xam ne yaa ngi ñuy seetaan wala nga ñuy déglu ak fu ñu mën dégloo rek ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu bu baax a baax euh, ci euh, jotaay bu tedd bi defee euh, ci laaj bi nga laaj muy daaru alimul xabiir muy ndaam ndaam nag dañ ko miinee ci ndaam waaye daarul alimil xabir mooy tur bi noonu la ko Sëriñ Tuubaa tuddee xëy na ndaam nag dafa bokk ci dàkkanteel ñi ñi sant loo ba ñaare ku ko sant ku ne ñu lay ñu lay woye ndaam loolu moo indi ndaam waaye da dox li mu xabir la la tudd sëriñ bi it moo ko sanc moo ko sancaloon bopp muy ab dëkkam euh, dégg naa ci Cheikh Mouhamadou Moustapha Lo doomi fi Ndaw Abdourahmane salamut li mu wax ne bi nga xam ne Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu jox na aw tur sëñ Mouhamadou Lamine Baara bis ba delsi ci la sañ ci daaru alima kabir loolu nag bu ñu koy xool Sëriñ Mouhamadou Lamine Bara yaakaar naa mi ngi gane àdduna 29 décembre 1891 kon su biis ba desee day dugg ci 92 kon dañu jàpp ne ci li gën a siiw mooy 1892 lañ sañ ci dëkk bi kon dëkk bi euh, Serigne Touba moo ko sañc muy ab dëkkam nekk ci moomeelam euh, ba bi nga xam ne nag Euh, sëriñ bi radiyallahu anhu sanc na euh, kon kon Touba moo jiitu dëkk bi bi nga xam ne sëñ bi sanc na Touba ku na xam ne amoon na ay daara yoo xam ne moom la wërale woon dëkk bi mu ñeenti daara daay tarbiya benn bi sëñ Jibril Sarr na Njaañ ne ca ba ci des Cheikh Massamba Diop Samb ba ci des sëñ Abdou Rahman ak Cheikh Ibra Fall euh, sëñ Abdou Rahman moo nekkoon ci ci penku bi foofu lañu wax ndaamaatu ay détail li ñu kii waaye pour li ñu tax jóg sëñ Abdou Rahman tey mooy wax fi ñuy wax ndaamaatu foofa kër Balla la tuddoon ñoom Balla Gajaga moo fa dëkkoon waaye nag xëy na suñu daam dëkk gi fi dëkkoon moo moo dem ba indi turu ndaamaatu boo defee nag bi nga xam ne sëriñ bi wàcce na ko moom suñu daam Abdourahmane kon dëgg bi wax naa la suñ taw suñ Tuubaa ko sanc bi ko nga xam ne tarbiya ba sëriñ bi wàccee ko ba nga xam ne nag war naa a masalan dellu moom dafa dafa dafa toogoon ci sëñ bi xëy na loola yëfi baatin la waaw mel na si kon sëñ bi da koo takkal ak geneen laxasaay muy jàngale alxuraan kon dëkk bi sëñ bi da koo sanc ndax boo déggee boo xoolee ñaari tur yi al alim al xabir lépp xam-xam la la lay tekk kon sëñ bi sanc ko daal di fi indi ak njabootam am na di ko di ko ci liggéeyloo ci ci rajo alquran xëy na ñëwee ci liggéey bi alquran dana dana ko wax muy dëkk boo xam ne li firndeel ne dëkku sëñ bi la lépp sëñ bee ko moom ndax diir bi fi sëñ daam di nekk di jàngale ci moom la lu sëñ Tuubaa la nekk ba bi sëñ Tuubaa jógee ci Jolof ci la sooba jox suñu daam duxaan dëkk bi waaw ci la ci soo jox dëkk bi mu nekk ci ak moomeelam euh, ndax euh, Sëñ Tuubaa wax naa la ak njabootam Cheikh Modou Moustapha Cheikh Modou Fadal rakam ma sëñ ma Sàmba euh, ak lenn ci ay jabaatam moo dox ci buso ak lenn ci dooy mag ñi alaji sëñ Saar bu Cheikh Ibrahima Saar Ndiassaka ñu baree bari sëñ bi ne sëñ amal fàll ñëpp sëñ bi indi fii ngir suñu daan leen jàngal ngir bëgg rëmb jamono yonen ba Tuuba li man bala xamoo di yan ba yan ba ñu yanoo xutbu ya ak lam daal ya caatu miñ ko moo ko fab raw gaaya kon dëkk bi alxuraan tax a jóg xanaa li ma ci li fi ma ci tëb nii nag ci foofu ci ci ci laaj bu njëkk bi rek fàttali tam ne loolu dabaata la lay doon dëkk bi tam sëñ bi dafa bokk li wane ne dafa bokk ci moomeel mooy lu mat fukki doomam ak juróom ak ñeent ñoo xam ñu ngi tëdd loolu tam lay wane ne ci moomeel sëñ bi la bokk ay waa waa barsàq ñi ay di ay soxnaam sëñ tubaa indi lañ ci kër gi am nañ fa man ñaar fukki at mais dañu bàyyi xel ndax fii ñu fii fii fii ñu tax nekk nii wax ni ne Cheikh Abdou Khadre fi la gënee àdduna li tax njaboot sëñ ay njaboot sëñ Touba Cheikh Abdou Khadre fi la gënee àdduna sëñ Mourtala fi la gënee àdduna sëñ Ibrahima mooy euh, damaa dégg sëñ Moussa day wax ne mas na dégg muy wax Cheikh Abdou Mbacke maamam naa Abdourahmaan a tax may wéet fa rahmaanaa seereel ne fitna yi kër kër kër ji lambu ci kër mm. ab doo ko teg ji man jox na riwaan na mooy moo tax ba ma mën di jaamu yàlla ndax indi fi njabootam bu ndaw indi fi soxna yu tedd yooyu ba bi fi bi fi siñ bi jógee leneen siñ mënu jël yóbbu li jaaref kon kon fii këtañ këtañ wàll na siñ mot laa way juróom bind na fi juróomi kaamil xat xatabat bi yadiha masaaxifa tuaddu xamsatan turaaka arifa loolu suñu maxamul li ñu dal ma ko wax ok kon ñu ci bu fekkee nag suñu daam ak alquran Euh, sëñ ndaam alxuraan ba mu jógee rek da ca da ca dem bëri ndax ci daara yi sëñ Moodu Anta Sali bi mu bi mu bi mu jaaree fi mu jaar di jàng ba dégg daara yi sëñ Moodu Anta Sali ñëw fa di jàng xam-xam bi mu ñëwee sëñ Moodu Anta Sali gis na ne alxuraan ji rafet na mu jël ay njabootam jox ko ko wax na ko sunu maam maman Anta far jébbal ko sii di bu wér ne Bamba kii moo ma doy ci réewi Soodaan waaw waaw waaw inaa fatax naa la saa waay tàmbali du durus basaaru lax wala cee mokkalaani daana moom moom si ànd ok eh, robay wa ilaa adin la fekk seex coloog seex aafiya weeru koor la woon ram daana ah, waaw nga xam ne kon eh, foofu la tàmbalee jàngale bi fi nga xam ne nag sëñ bi sañc ndëkk bi nag dal muy jàngale eh, nga xam ne Cheikh Mouhamadul wax na ne li ëpp ci li nekkoon ci moom diiru bi sëñ bi nekkee yit ko mokkalaani alquran daan ne sëñ Tuubaa samp ko ndax ndax samp ko muy jàngale alxuraan mu taxaw ca taxawaay ba gën a rafet noonu la ko suñu bés waxee ci ci mën a baax rek jàngale fi ab lim bu baree bari ay génération ndax ku jàngal maam Cheikh Anta si ñu Modou Mamoun jàngal si ñu Modou Roqe kon loolu ay génération jàngale woo ko fii waaye loolu kii kon waaye bu dee fii jàngal na fi ay génération mu nekkoon yitteem suñu dam daw dem fenn daw tukki daw dem gisam ci dëkk daanaka fu bay doon ndax tënku rek ngeen tënkoon ci liggéey bi ko suñ tubaab santoon loolu la cay firnde mooy fi ngeen jógee di léegi di Daaru Salaam xam ngeen ne amoon yaakaar naa ñëpp demoon nañ fi daam demutoon la waaw la la ko tee dem mooy dafa waxoon suñ tubaab ko joxoon ndigal ndigal toog toog moo bi mu ñëwee wax nañ ne bi ko suñ bi ko suñ bi woowee bi ndaw li ñëwee dafa fekk euh, muy bindal suñ Basiru euh, yaakaar naa su boo demee ci mu Ka ba muy mat ci ci dikku see ama fatee ma naan basiiroo bari xam-xam rafet ne lenkaat xawaa sarxu sabal ulumi axyaar eh, keroog la laaj alliwaam sëriñ ndaam sëriñ ndaam ne ko laqadara joojee ca fataxi lay xoos keroog daam dana teqatale ni ñëpp bëgg leen bëggal nañ ma ci dem gi ma ñëw bëggal leen eh, loolu eh, kon sax bu mu saxoon ci alxuraan daan ci liggéey liggéey bu rëy nag alxuraan yëmu ci woon di ko jàngale waaye di ko jàngal way dawlu yi ay lim yu bari la ci daan jàng di ko jàngal waaye nag di ci daan ci amal ak jagle mag ñi nga xam ne ñoo nekkoon Sëriñ Tuubaa mag ñi képp ku fi mës a jógee daan la jàngal téeméeri kaamil bu fi jógee mu jàngal la fukki lépp su mu saako wax na téeméeri kaamil la daan jàngal kemam ya fi gis naa mu jàngal ko làmp ak daam ndàmp ndumbe xabbaana waaw waaw waaw gis naa mu jàngal ko làmp ak daam ndumbe xabbaana kuy ndaw mu jàngal la fukk ak ñaar te kenn du ko rax sarax la yool ba nga dem jannatu adnaan beneen bi boole ci nag guddi gu jot mu di ko naafila alquran ñaar ñaar di ko naafila euh, fukki raaka ñaar la daan la daan def ba muy soo jóg abu xanifa te lay roy moo di na umaana gannaaw boo de gis naa mu nekk téeméer raaka yu mat waaw am na fu bay bi def na ba boo demee ba ca kanam gannaaw ga lay taxawaay alquran gannaaw ga lay naafila alquran di taxaw muy ñaari rakka mu salma sant rahmaana mu salma sant rahmaana nga xam daal ci li mu bëgg a foofu mooy xëy na benn bi ni mu koy am nu ci manqué li mu mooy da daan tàmbali nawet fukki rakka ñaar ba yàgg muy muy def ñaar rakka alquran am na boo xam ne daa tàmbali baax na bu mur ci mu mu mu fàttali kon alquran na ci taxawaay boo xam ne taxawaay bu bu bëri na fi ma ci tëjee mooy li ci sëñ Basiru wax rek. firndeel daan ne lam ara fii man raaytu man abraku minhu ay mina cheikh abdourahman man abraku minhu taaliman wa tadrisa wala aqwa minhu fi lqiyaami bihi ay bi wala aqwa minhu fi lqiyaami bil quran <laughs> kon loolu gisu ko daq taxawee alquran ak ko daq jàngay lii lañ leen jëlee loon dara alimul xabir muy ndaam àndoon ci ak seen mbokk àndoon ci ku ñuy wax sëriñ Fallou Lo di kenn ci njabootuk sëriñ Ndam Abdourahman loo yaakaar naa boo leen dégloo waxtaan wi bu baax leen umpoon lépp ci ci daara alimul xabir leer na leen incha allahu taala seen émission wàccaay màggal ngi jox dig daje ci beneen numéro incha allahu taala salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani hala maahin maal absa wa safar ngir jot sunu ay vidéo di ngeen di abonné fii ci seen chaîne YouTube feex Production ngir bës cloche bi bokk ci programme bi national international